nga junju sànq ndey di met ci la ñuy dem ndax assemblée universitaire dafa jël dogal tëj euh, kon campus pédagogique bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dalee ko yi fan ak benn bu weerub juillet jàpp ñeenteelu fan bu weerub octobre li ni mel nag étudiants yi suñu reporter tasel ñu ngi koy rafetlu waaye nag euh, li euh, xaw a indi jiixi jaaxal ci seen xel yi moo ñeel calendrier examen yi ndax ñenn ci ñoom defaguñu seen examen premier semestre ñi ci des ñu ngi xaar seen examen second semestre ñu ond ceeg ci jaan assemblée université Cheikh Anta Diop de Dakar jël nañu ndogal ngir suspendre cours yi ngir aar étudiants yi ci Covid 19 bi étudiants yi nag rafetlu nañu ndogal bi. boo xoolee ba ci biir nit mënoo jàng te amoo wér yaram boo xoolee fii ni université bari na ay nit trop te ñoo ñëpp mënuñu jàng ci situation bi parce que il faut ñu respecter mesures barrières te maladie bi mu ngi fii dafa commencé jël empleur bi. loo xamante ne lu baax la parce que ñun ñëpp xam nañu université ni mu mel. gis nañ condition yi nga xam ne moom moo am au niveau du campus social moom moo am ci restaurant yi pas plus tard que matin bi kaas bi ma ndékkee nit moo ndékki ba pare jox ma ko ma yelandi ndékki ñu bëri ci ñoom defuñu seen examen premier semestre ni second semestre te ragal nañu lool seen résultat ren ji bañ a baax waaye lu munti am ñu ngi woo seen xarit yi nañu profité ci vacances yi ngir jàng seen leçon yi bu ñu tëjee campus bi instant nii dina xaw a doy waar ñi nga xam ne defaguñ seen examen ñu ñu xam ne euh, donc euh, juste au retour y les examens moom moo leen di xaar kon li ñu war a def moom mooy au lieu que bu ñu demee si ñaari weer yi ñu toog seen kër li ñu war a def moom mooy ñu góorgóorlu ñu waajal examen yi. 17 étudiants la ñu annoncé corona moo leen rey étudiants yi dañ ko weddi nee nañu xibaar yooyu wérul. laataan ñu ko teg Serigne Saliou ndax waruñu woon régler question calendrier examen yi ba noppi. c'est là que le bas parce que boo gisee étudiant bi ni mu waxee léegi nga xamante ne affaire bi dafa nekk décision boo xam dafa leen bett je crois que il fallait nécessairement associer étudiants yi aussi sur la prise de décision. Mm-hmm. si réellement c'est pour sauver les étudiants ci pandémie bi décision boo xam ne nii vraiment ñu ngi koy saluer mais indi jiixi jaaxu sama xel moo di bu ñu fermé UCAD mais UGB tëjuñu ko tëjuñu Assane Seck tëjuñu aussi université bi nekk Bambey aussi donc loolu déjà ça pose un problème parce que bu fekkee rek c'est pour éviter les rassemblements au niveau des campus universitaires université yëpp dans les normes dañ leen war a tëj parce que pandémie bi moom bu xasee ba dugg fenn rek mën na mën na fa law mais li tax exclusivement ou bien je pas de façon discriminatoire ñu xam mhm. nit ñi ñu ngi koy lam-lamee mooy le problème même des kii de nawetaan parce que xam déjà nawetaan yi su ma déggee ñu ne ñi ngi tëj lii tëj lii te nawetaan yi les gens veulent organiser les les ah, nawetaan. yi parce que déjà j'ai entendu un de leurs hauts responsables. Mhm. dire que nawetaan yi bu ñu koy organiser bon on fera de sorte que les gens qui viendront là-bas dañ dañ leen di vacciner et mhm. ce qui signifie foofu am na business boo xam nit ñi dañ ko que il tiendra à ce que les nawetaan soient soient soient organisés. Mhm. mais nawetaan bu ñu ko bàyyi kañ wax dëgg yàlla université bi xale yi jàngee je crois nit ñi mën nañ jël des mesures barrières de se faire de sorte que booy mën nañ continuer seen jàng. Mhm. voilà euh, Serigne Saliou nit yooyu la sax la wàcc ci tali bi dem seeti leen euh, fekki fa Alassane Balde mu ngi tey diwaanu Géejawaay Alassane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay xaadi colonel mu nga euh, yaa ngi ci mécanicien yi nekk foofu géejawaay ñu remarqué ne presque ñëpp takk seen masque Mm. alors c' est vrai que ñëpp takk nañ seen masque euh, mais nag xam nga souvent c' pas toujours évident rawatina bu fekkee nekk dañuy wax ay mécanicien euh, tey nag ñu fi nga xamante euh, mooy ñi fi nekk xool yan matuwaay la ñu jël parce que boobu ba léegi nag ñu ngi wax li nga xamante mooy respect mesure barrières yi rawatina solin masque bi moo laay laay moo nekk responsable bi fii alors laay ñu gis ne yéen a ngi ci liggéey bi daan guddi na mais euh, ñu ngi ci mbas mi gis nañu euh, mesure barrière dina jafe souvent si condition yi ngeen di liggéey déjà yan condition ngeen fi nekkee surtout si respect mesure barrière yi. di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam en fait di leen euh, wax ni affaire yi moom métti na trop wax dëgg yàlla métti na trop trop depuis feebar fi duggee fi ba tey. liggéey bi ni mu waroon a doxee doxewu ko ni mu waroon demee demeetu ko mhm. parce que a tout moment mooy tonte bi dafay nekk loom day joué ci xelu doomu aadama à tout moment saa yi ñu xëy ñu ne ñun suñuy paquetu masque ak suñu ay gel teg ko fii nii. suñu xëyee dinañ ko laal suñu liggéey dinañ ko takk dafa ñoo dem sax ba nga xam ne dafa bokk ci ñun. yaa ngi koy wax sànq stress bi day day manque. Mhm. parce que ni ngeen di liggéeyee souvent gis ngeen ni proximité bi. loolu du mhm. mënul ñàkk ci liggéey bi. non mënut a ñàkk mënut a ñàkk il fallait que comme li ñu waxoon rek ñuy xeex ak moom. Mhm. xeex ak moom dina métti trop mais

xam nga di ko invité bu baax di ko invité bu baax di takk masque yi masque yi moom même bu dul lool sax même bu dul Covid sax dafa am solo nit di ko takk parce que dina la mën a dimbali di ci mën a protéger wu lu bëri loo ñëwee raxasu ba mu set jël sa zel tee xam nga di liggéey di xam ni ngay defee bu baax lu ëpp lu ci ëpp sax ñin heure bi la comme ni ñu fekkee fii nag lu ci ëpp heure bi la xam nga bu affaire demee ba xaw a tane ci la ñu nekk fii ba yenn heure yi rek ba yenn heure yi ay minuit ak yooyu ñu daal di tàqalikoo ku nekk dox sa dox waaw jërëjëf mu nekkoon laay moo nekk gérant bi nga xamante ne garage bi kon boo ko gisee naam sax jafe na mais ñu ngi jéem a def seen kéem kàttan pour mën a respecter les mesures barrières donte jafe na mais nag li ñuy wax rek xoddeeku balaa ngaa lakkale te yaakaar naa ci loolu la nekk xadi colonel fii nga xamante mooy ca géej rawat na ci garage ñi ngi wéel mooy seen liggéey mmh. jërëjëf euh, Alassane euh, Baldé daal di woy ba tey ci xibaar yi wax ci euh, épreuve bac général ñu ngi ko war a tàmbali ëllëg incha allah examen yi la nag nar a jamook diggu bu mbas mi ca lycée sergent Malamine Camara ab centre d'examen la teg nañu fa matuwaay yëpp rawatina ci wàllu wér-gu-yaram bu ko defee yëf yi ñu daal di koy amal ci anam bi war ñu ondi ceeg Abdoul Aziz Soda Ba muy bërëb yu ñuy raxasooy wala sax gel hydroalcoolique lépp lu jëm ci wàllu protocole sanitaire bi yemm na. lavage de na port du masque gel antiseptique xale yi benn portable la ñuy toog c'est bien euh, dinañ def tout ba heure de pause mu bañ am euh, rassemblement. ginnaaw seen carte d'identité ak seeni convocation bépp candidat buy ñëw ci examen yi dafay gànnaayoo masque. xale bu ci ñëw également fee si portail bi soo takkul masque tamit ñun dinañ jox masque. muy ay motukaay ngir aar candidat yi ni ki noonu examinateurs yi ak ñi bokk ci jury yi. aar sa bopp d'abord mais également aar ñi nga fekk si muy say seen naataango candidat. ak euh, également personnel bi leen yore di leen saytu pour bac. lépp kon yemb ngir ñu amalay examen ci anam yu mucc ayib. su bac li mu waroon indi indi na ko euh, papier yi ñëw na épreuve yi ñëw na ñun également au niveau du centre préparer salle yi euh, def anonymat yi tout ci kuuru école bi lim bu néew ci ay candidat moo fi teew ñi leen di def seen révision yu mujj gannaaw ay weer yu ñu doon jàng ka réviser. ñu jàll ci seen rubrique seen xalaat. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen fa Sen TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu seen liggéey ñun euh, sénégalais yi nekk Centrafrique fii dañoo nekk ci ay jafe-jafe yu metti parce que ñu ngi bëgg a fayloo séjour six cent cinquante mille loolu yombut du képp ku nekk ko mën a fay. Euh, ci loolu maanaam ñu jël ci ay suñu compatriotes ñaar ñoo xam ne boobu ba léegi ñu ngi leen tey ci biir kaso bi di leen bëgg a fayloo maanaam six cinquante cinquante mille te loolu maanaam doon na loo xam ne nii lu luy mën a nekk moo tax boobu ba léegi ñu ngi ciy yéeg ak a wàcc ki nga xam ne nii moo fi représenté consul honoraire bi mu ngi ci boobu ba léegi tudd mbay gumba la mu ngi ciy dox boobu ba léegi mais dara soteegul dañ leen di ñaan ndimbal pour yéen waa Sen TV man ngeen a relayer nga xam ne lii autorités yi danañ ci jot xam ne maanaam kat seen i doom ngi fii ci Centrafrique di jànkonteeg ay difficultés yu metti léegi nag maanaam sénégalais yi nga xam ne nii ñi ngi ci Centrafrique fi mu toll nii yi ñuy wax motuñ cinq cent te ñoom seen i doomu réew nga xam ne di centre centrafricain nekk ca Sénégal googu ci dernier recensement mi ngi toll woon ci deux mille sept cent te kenn laaju leen dara kenn du leen bundu ci dara fii nag booy dox da ngay xool fu sori di teggi maanaam seen i check point ak seen i patrouille dañuy ñëw ba ci seen i biir suñuy biiri kër buñ la fi fekkut même boo tëjee sa biir sëb nekk dañ koy daaj yi fuuyee xool mooy loolu yéen a ma gën a xam. maaleykum Sénégal ñu ngi leen waa Sen TV ñu ngi leen di ziar Sénégal ngir yàlla sonn nañ sonn nañ ci seen politique bi sonn nañ li ngeen bëgg a teg yëpp teg ngeen ko fi ngeen bëgg a dox yëpp dox ngeen fi lijjanti ngeen ba école tijji na ba tëj takk wa leen masque indi woo leen kaa jeexal ngeen kaa yëpp école tëj na def ngeen seen examen yëpp léegi nag da ngeen ñu bëgg a dugalaat ci ay cas confinement indil ñu problème soxla wuñu faye bu ñu weer bëgguñu ngeen jël lu ñu soxla mooy ñun am nañ suñu métier liberté pour liggéey lañu soxla instant yi politique yi ngeen teg yëpp dara waralu ko màggal yeeg gàmmu yeeg li ci suñu kanam bu ngeen demee ba école bëgg a tijjiwaat ngeen jeexalaat seen i cas ñun sonn nañ ci nguur gi yal nañu yàlla musal ci nguur gi te jëlal ñu ko fi te duñu lu ko gën Ngok eh, di leen di jaajëfal bu baax a baax yéen itam def leen ni ñoom ngeen yónnee ñu seen yaay vidéo ci whatsapp bu groupe eh, des médias ndey di met kii deuxième personne bi mi ngi wax ne nañu responsable takk mhm. masque yi effectivement tey jii man jàpp naa ni tëj nit ñi du solution arrêté activité yi du solution parce que bu ñu fàttaliku am na ñoo xam ne am na salaire mais am ñoo xam te ne amuñu ay salaire li ñu yaakaar mooy seen business bopp la ñu yaakaar ngir dund donc ñooñu nag waruñu mën a wax mbirum vraiment tëj ay activité wala arrêté ay activité parce que loolu aussi tamit day impacté bu baax a baax ci seen vécu mhm. parce que ku am sa sa sa boo liggéeyul xam te ni mooy docteur Ousmane Dia chaque jour mi ngi communiqué am nañ actuellement plus de 633 lits yoo xam ne nii ñi ngi ko utiliser am na ñu ci tëdd déjà. Mhm. fees na dell ñi ngi wax ni début août dinañ am plus de 1000 lits mais doyul. parce que gis nga c'est vrai que Dakar rek la wax ni peut-être fa la feebar bi am mais am na suñoo xam ne tey jii da ngay gis sax ku grippe mais boo ko làmbatoon tey jii nii boo defee test tey Covid lay doon donc encore une fois dañu Euh, renforcer les dimet wax rek man moom problème c'est surtout au niveau des plages parce que temps yi gis nga plage yi dañu fees dell mhm. te c'est des lieux de regroupement yoo xam nit ñi bu fa demee c'est pour leur confort c'est pour leur jouissance donc foofu duñ fa takk ay masque te gis nga foofu dafa am promiscuité mhm. je crois que état bi li waroon def tey mooy dañu war a jël benn arrêté tere les rassemblements au niveau des plages comme que déjà lamb ñi wax nañ tëj nañ ko nañu tere au niveau des plages tere aussi ne nawetaan ren du am faire de sorte que parce que il faut aussi qu'on aille vraiment vers la décroissance de cette maladie mais suñu naree bàyyi ay pàcc pàcc par exemple ne plage yi xale yi mën nañ fa dem nawetaan war na mën am war nañ mën a permettre tel autre rassemblement aussi su yàggee les efforts de l'État seront encore dañu nekk ci benn dynamique de vaccination déjà je li koy accompagner mooy aussi faire de sorte isolement vraiment ñu gën ko mën a wàññi su fekkee ne mënuñu ko bàyyi. Mhm. Fatou Abdou. waaw bu ñu déggee déjà li nga xamante ne moom moo tukkee kër docteur lu toll ci presque quatre-vingt-dix-neuf de saturation ci li nga xam ne mooy wàllu lal yi déjà bu ñu wax oxygène naam yóbbuwuñu lépp mais plus de quatre-vingt-seize mille euh, jot nañu ko tàmbalee utiliser xay na am na lu ci des ndax bu ñu wax na ñoom am nañu plus de cent quarante mille soixante virgule soixante-seize boo xam ne des na dafay tiital. sénégalais yi et que loolu nag responsabilité individuelle kese moom moo ci pexe moom mooy respecter d'abord les mesures barrières parce que c'est vrai qu'on communique trop sur la vaccination mais bu ñu fàttee li nga xam ne moom mooy respecter les mesures barrières comme ni ñu ko waxee woon raxasoo ndox takk masque bañ di dajaloo ak di booloo et que li nga xam ne dañu ko def bëgg ko désengorger def ay centre pour que ñu fay vacciner c'est bien mais ñu fexe ba hôpitaux yi dajaloo gi ñu fay dajaloo ku nekk bëgg a xëy bëgg a dem vacciner wu yow fajar xëccoo bi bi loolu bokk na ci liy ci jël ay pexe ci nu mu gën a gaawee askan wi ñoom tamit jël seen responsabilité pexe mi vaccination la ñu mën a dem ci bërëb vaccination yi vacciné wu ji mhm. jërëjëf euh, Fatou Abdou di jaajëfal itam ne di met ndaw